sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala almabuuthi rahmatan lil alamin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain watal imaani wal islaam wal ihsaan wal iraadat assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu sant yàlla subhanahu wa taala julli yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam leen di leen dokkeel di fas yéene yoor yoon rek ci laay biir ak lante ci waaru lislaam nga xam ne moom lañu bokk di fas yéene ci jullit yëpp rek di def ak lante ngir yàlla rek tax am yonentam juréem muy mboolem jullit yëpp rek comme ni ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxe muy diinu nasihatu maanaam diine laayante biir la maanaam yo laayante biir ci suñu diggante ci suñu diggante ak yàlla dañ ci war a taxawee di ci laayante biir waaye tamit taxawaay bi ñu am war a am ci diggante ñun ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ci laayante biir ba xam liñ ci war a taxawee waaye tamit alxuraan yi nga xam ne bi yàlla da ko wàcce yi li gën a màgg ci kaw suuf li gën a ci kaw suuf ci war di laayante biir moom itam xam nan lañ ko war a fonke lañ ko war a jàppe ak ban am ci suñ diggante ak alxuraan waaye yi nga xam ne yàlla da leen def di kilifay diine islaam ñoom itam danoo war di laayante biir ci ñoom ngir xam li ñu war a seqal ñoom cër yi leen war a jox ak war a fonke ñu leen di war di topp yëpp ñu mën koo xam kon fas yeneen yooyu rek ak yéen ci liggéey boobu tey ñu bëgg ñëw rek ci fat leen teg yéen jullit ñi eh, lenn loo xam lu amaam solo la muy sayyidina Muhammad mii sallallahu alayhi wa sallam eh, gane gi nga xam ne gii da koo ganee jamono àdduna koo gane àdduna te sunu sëriñ bi Cheikhul Khadim euh, wax ci lu ama am solo itte woon ko lool doon ci am ay taxawaay yu am solo ba tax mu joxoon ko itte lool lool di bëgg rek di góorgóorlu ci mbind yi nga xam ne yii doon na ko wax ko jëmale ci ganek àdduna ku am solo googu gu ganek Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àdduna mu doon ci wax yu baree baree bari ñu gis ne bokk na ci li ci Seexul Xadim doon wax ngir am solo gu am solo noonu na fa inna nabiya sallallahu alayhi wa sallam majmaul xayri wa munawwiru suduri wa saadatu tullaabi wa raaxatu ulin nuha wal albaabi wa sullamul wusul wal minnati wa mafatihul bishri wal amni wal jannati wa matlabul fawdayn parce que yii yëpp mbokk yi xaadimu rasul da ko wax ci sirna Muhammad xam ne sirna Muhammad nag mooy lépp nekk lépp produit yu àdduna ak àllaaxira rek yàlla da koo boole def ko ci jëmm jooju ndax xaadimu rasul su ne sunu sang bii di seyna Muhammad day sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne lii aw yiw la rek yàlla dajale na ko ci moom muy majmaul xayri mooy jëmm ji nga xam ne ji moom la yàlla dajale lépp loo xam ne di aw yiw la def ko ci moom wa mu nawwiru suduuri dana itam jëmm ji di Seydina Muhammad mooy ki nga xam ne kii lépp dënn boo xam ne bii yàlla nar naa defal borom tawfiq rek maanaam ubbi sa dënn def ci ak leer euh, gëm yàlla gëm moom gëm Muhammad nii nga xam ne moom mooy làmp bi nga xam ne bii mooy leeral dënn yi ci def ak leer ba ñu mën a dund lislaam bi jaamu yàlla wa saadatu tullaabi dana itam ñëpp ñi nga xam ne dañuy sàkku yàlla bëgg a xaritoog yàlla bëgg a doon euh, soppe yàlla bëgg a jege yàlla bëgg a jege àgg ci yàlla itam ngir am ak texe ne ne sayyidina Muhammad mooy nga xam ne kii lépp lu di rek ngir ku jëm ci yàlla rek ne ne melam yàlla def na ko ci moom wa raaxatu wulinnuha te itam sayyidina mooy noflaayat ñëpp ñu nga xam ne ñii ñu ngi jéem a góorgóorlu ci lépp loo xam ne li yàlla digle ne ko lu nekk ca waaye tamit di góorgóorlu ci lépp loo xam ne lii yàlla da koo tere ñuy jéem a moytu loola ne ne sëñ la wax mooy ki nga xam ne kii boo toppee ci moom roy ko rek da ngay daal di noppalu ci day jéem a ci lépp loo xam ne lii moom la la yàlla digal nga mën koo def waaye tamit dangay ngay am noflaay lépp loo xam ne lii yàlla tere na ko rek nga mën a bàyyi loola. wala albaab yi ne itam ñi nga xam ne ñi dañoo am xel itam nag noonu rek lañu koy ko defee ñu mën a am nooflaay booba wa sullamul wusuli mu ne Seydina Muhammad mooy eh, race bi mooy bi nga xam ne bii ku ci jaar rek maanaam ko nga mën a àgg ci seen ca suñu borom subhanahu wa taala wal minnati dana mooy jaarukaay bi nga xam ne bii ku ca jaar lépp loo xam ne ni bëgg nga ko ci ay xew rek ma dina nga ko am te it Seydina Muhammad lépp loo xam ne lii dégg la rek Seydina Muhammad mooy caabi ya wala am ni leneen lépp loo xam ne ni kóolute la lépp loo xam ne ni sécurité na lépp loo xam ne nit ki da koy muccee lépp loo xam ne lii da koy ragal rek dene Seydina Muhammad moo yore caabi ya wal jannati dene caabi ajjana yi yëpp it ah, Seydina Muhammad moo ko yore moo ko doon wa matlabul fawzi ni dene it texe gi ñuy bëgg ñun jullit ñi ñun jaamu yàlla yi di ko jaamu ba texe gi ñu bëgg muy ñaari texe muy texe ci àdduna texe ak àllaaxira waaye am teraanga àdduna am teraanga ak àllaaxira te def Seydina Muhammad euh, moom la ko yàlla def ci moom kon kii lenn ci loo xam ne lii Xaadimu Rasul wax na ko ay yoo xam ne dajale na ko ci Seydina Muhammad daal lii lenn la ci loo xam ne lii lu ca bokk la ngir ambulee ko ci li nga xam ne lii dañuy won ne Xaadimu Rasul yitte woon euh, benn jamono Seydina Muhammad la waaye tamit ab soppeem laan lépp it maanaam euh, moom la ko joxoon féerale ko ko mbokk yi kooku mooy Seydina alayhi wa sallam loolu lu aju ci wàllu ganek àdduna gi xaadimu rasul wax na wa kaana mawliduhu sallallahu alayhi wa sallam bawaakiiral xayraati wa talaa'ial bishaarati wa raxamaati wa irafatan lil bashariyati jamaa xaadimu rasul ne ne seyduna muhammad day gane gi mu gane àdduna daal lépp loo xam ne aw yiw la rek ca la jaare daal di teel a ñëw ci àdduna lool teel a ñëw lépp lu di yiw rek ci àdduna ne bi seyduna muhammad gane àdduna rek la am waaye tamit ne lépp loo xam ne lii mbégte la itam ak ay yërmande itam bi Seydina Muhammad gane àdduna la yooyu fenk lépp luy mbégte daal di feeñ lépp lu di yërmande daal feeñ waaye tamit lene bi mu gane àdduna moom Seydina Muhammad ci la mbindeef yépp xëtlikoo nag maanaam wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamina maanaam eh, yërmande ji nga xam ne ji moom la yàlla def Seydina Muhammad yónni ko ak mbégte mi nga xam ne nii moom la def si moom maanaam mbindeef yépp ñoo ko bokk ñi nungu ak ñi nunguwul maanaam ñi gëm ak ñi gëmul ñëpp yërmaande jooju da dajale ndax euh, ñi gëm moom ñoo ci jiitu euh, daanaka moom lépp waaye tamit yërmaande ji dafa yaatu yaatuwaay boo xam ne bii ñi gëmul sax gëmuñu lislaam gëmuñu Seydina Muhammad sax terewut yërmaande jooju ak mbégte moomu euh, bokk nañ ci ndax ne ne waa iraasatan lil bashariyati jamaa lépp lu di mbindeef rek buñ ko yëgee buñ ko yëgu rek nañu xam ne ñu ngi xëttali ci ñëw gi seen Muhammad ñëw adduna it ne ne wa ni'matan musdaatan lil xalqi ajmaina ne ne Seydina Muhammad ak xéwal la koo xam ne gi yàlla da koo tàllal mbindeef yépp kenn nu mucc ci mel ni mbindeef muccut ci xéwal yooyu nga xam ne yi moom la yàlla jox Seydina Muhammad mu yore ko di ko jox jaam ñi te loolu nag kon dafay bokk ci mimma yuxattimu alayhim an yasnu ala allahi wa yashkuruhu alayha kon ne ne loolu yàlla def ci Seydina Muhammad ay jagleel ko mbindeef yépp daal day waral ci bépp mbindeef bu mën a doon ñu ñu war a na maase sant yàlla gërëm ko ci yooyu nga xam ne moom la ñu defal ñun mbindeef yi lépp mu dénk ko Seydina Muhammad jaarale ko ci moom mu tasaare ko ci àdduna bi kenn mënu ca mucc bu ko defee ne naa euh, mu waxti naamu mawlidihi waaye day war kon ñu profito bi mu gënee àdduna saa bu ñëwatee rek maanaam ñu profito gaawtu euh, ngir di tazkiri naas yi sunnatihi al atirati ñuy di taxaw bu baax a baax ci di fàttali nit ñi sunnaam soosu nga xam ne si moom la taxawale taxaw taxawal ci kaw suuf nga xam ne lépp loo xam ne lii ay caaxaan la rek bi mu ñëwee moom Seydina Muhammad da ko fee jëlee daal di teg sunna soo xam ne si su weex tàll su leer naññ la xam ne ku ca dox rek maanaam yaa nga aw ca yoon wa nga xam ne bii moom nga war a aw ngir nga a dem ca yàlla waaye tamit bu guddi ñëwatee muy bi mu jamee ganee adduna war fat fàttali nit ñi jikkoom yu sell yooyu nga xam ne yii ci la ko yàlla taggee ne ko wa innaka la ala xoloxin adimin ne yooyu li ñuy war di fàttali nit ñi la di leen ko waxaat muy bari lool luñ leen koy baamu di leen ko wax ngir lan li yaqta li yaqtafi li yaqtatifu min zalika ad durusa wala ibara ndax nee loolu ñu leen di farli sayyiduna Muhammad dana tax maanaam ñu mën caa amee ay leçon di ca waaroo seeni xol di ca tooyaat seeni xel di gën a ubbeku ak leer di ca gën a dugg ba ñu mën a gën a xam jaamu yàlla gi ni ñu ci war a taxawee waaye tamit nee na dina tax wa yaqtabisu minhu alla alia wa durara nee na fàttali ko woogu itam bu ñu koy fàttali nit ñi dina tax maanaam ñu mën a ci am ay leer yoo xam ne day mel ni or yi gën a cher or bi gën jafe bi gën a baax maanaam lam ca julu mooy rek xiwal yi nga xam ne moom la yàlla tasaare ci kaw àdduna bu buñ ko dee fàttali nit ñi rek dene yooyu dinañ ko ca mën a amee barkeb fàttali googu nga xam ne gii moom lañu koy fàttali bindee fi mu ne wa bi hada wa zaaka ne ne ak lii lépp nag suñ ko defee nakunu xad aman na bi nabi sallallahu alayhi wa sallam ne buñ ko defee rek day ni daal di nekk ñoo xam ne gëm nañu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa qar wa wa wa waqarnaahu it day fekk ne ku nu weg la ku nu ormal la ku ñu respecté la ku ñu wàccee ak wàccuwaayam la wa wafaynaahu baaxu a xaq yi te ne it dinañu góorgóorlu kon ci loolu ah, ba delloo ko lenn ci xàq yoo xam ni moom la ñu am suñu diggante moom donte liñ ko war a jox ci àq lépp duñ ko mën a matalee dene wa kaana fi taliati ulaika allazina anu bi ihya i mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Sénégal faridu asrihi wa wahidu dëhrihi mawlana cheikh alxadim radiallahu anhu te nag bu dee fii ci Sénégal dane bokk na ci ñi nga xam ne ñi ñoo jëkk a yittewoo guddi googu muy guddig jamono guddig ganeeg jamono goog Seydina Muhammad gi ñi ci ñi ci gën a farlu ñi ci gën a teel taxaw di ko màggal di ko farliku di ko dundal ne ne Seydina Muhammad ay eh, Cheikhul Xadim bi ne ne bokk na ci ñi nga xam ne ñii ñoom ñi ñoo ci gëna a farlu ñoo ko gënoon a yittewoo nga xam ne allazi kaana yaxrisu alayhi xirsan shadidan nga xam ne xaadimu rasul dafa fonkan di googu eh, xër ca lool ci màggal ko ak di ko fàttaliku ak di ca soññ nit ña xërte goo xam ne gi maanaam na lool kun gisan mu mel ca noona waaye tamit wa yuwallihi ihtimaman kabiran ne ne ab na àdduna googu bés boobu saabu bu jotaa eh, xaadimu rasul la gis mu def ci yitti joo xam ne kii wone ko ca maanaam mu ñu kenn koo xam ne kii mas nga ñoo gis mu mel ca noona ni ko fonke woon ko yitti woon lam ca daa joxe ci ay teraanga mu ne bu boobaa ne ne narumu fi hadihi alajalati balwaratahu wa zaaka tarbis wa nuqati taariya dene noonu seen eh, am noonu xaadimu rasul fonke woon guddi gi di ca def léppam alalam yépp eh, fanaane ko màggal yendoo ko màggal ne da cay bokk ci ngir ñu wone ca leeral ca lenn loo xam ne taxawaay boobu xaadimu rasul aman ci gën àdduna ko am na ko moom la ñu leeral fii ci lii nga xam ne lii moom la ñu bëgg a jullit yi biir te tey ñu tomb tom toll nga xam ne bii moom la yenn tomb yoo xam ko ci toppal euh, yi nga xam ne yi moom lañ bëgg a waxtaan rek ci fonk koo xam ne gi xaadimu rasul fonkoon na ko mawlid gi muy gën ak jamono gi dañ ci jëkk ci tomb bi mooy xubbuhu lin nabi sallallahu alayhi wa sallam bëgg goo xam ne gi xaadimu rasul da ko bëggan seydina Muhammad kon dañ ci def tuuti ab leeral rek mu ne inna nabiya sallallahu alayhi wa sallama huwa rahmatullahi ala al alamina wa xitaamul yi wal mursalina ne ne seydina muhammad daal mooy yërmande yàlla ji nga xam ne ji yërmande jooju yàlla da ko tasaare ci mbooleem mbindeef yépp kenn na muccut ci yërmande jooju waaye tamit seydina muhammad mi day ñi nga xam ne ñi ñoom la yàlla tànnan yónni leen ci jaam yi ngir ñu di leen gindi moom mooy ki nga xam ne kii moo ci mujj xam ne moo ci gën a euh, rëy ak ndomba maanaam mooy seen kilifa ñoom ñëpp moo ci gën a kawe moo ci gën a tedd ndax euh, ñu ko fi jiitu ñëpp yàlla yónneen leen kat day am ay jamono yoo xam ne ci la seen ak yónne yónnet di jeex maanaam ci la seen mission di jeex waaye Seydina Muhammad moom yàlla da ko mujj ak jamono nga xam ne fekk àdduna ngi dem euh, moom yónnetam boobu moo fi nekk maanaam l'islam moo fi nekk leetaram boobu maanaam moo fi nekk moom lañuy ñuy jaamoo yàlla waaye tamit ne ne wal fardu ladi intaxaahu wastafaahu wa taxisahoo xillan wajtabaahu xaadima rasul nee na nag Seydina Muhammad mi kat kon mooy ki nga xam ne kii moom kenn dong la ca ko yàlla def nga xam ne yàlla da ko sellal tànn ko daal di koy jàppe ne moom ab xaritam la waaye tam da ko daal di tànn defal ko ay daraja yoo xam ne yii moom moomu dong la ko defal wa xalaa alayhi kulla mahamidil xisaal te it ne ne yàlla dafa summil seyduna muhammad bépp ay jikko yoo xam ne jikko yu rafet la maanaam yàlla da ko ko summil solal ko ko nga xam ne gis nga bi mu koy tagg bi mu ko taggee ci jikko ju rafet waaye taggew ko ci am am wala ab juddu bu rëy wala ab famille wa innaka la ala xuluqin azimin la ko yàlla taggee kon ne ne euh, Seydina Muhammad moomu daal yàlla da ko summil lépp loo xam ne ni jikko yu rafet la jikko yu baax la maanaam mu daal di ko ko jox daal di ko koy solal waxallaahu bi jamii sifaatil kamaali wal jamaali dana itam yàlla dafa solal Seydina Muhammad yépp jikko yoo xam ne jikko yu mat la waaye itam yëpp jikko yoo xam ne jikko yu rafet la def ko ca jëmam joojee bu di ko wax di ko euh, jëf di ko doxe ne ne li zalika ne ne looloo tax fala yatimmu imanul mar'i illa ida rarasa xubbahu sallallahu alayhi fi qalbihi looloo tax xaadim rasul ne ne nit ku mën a doon balaa sa gëm yàlla di mën a mat dangay ngay bëgg koo xam ne gi bëgg nga ko Seydina Mohamed nga jëmbat ko ci sa xol maanaam nga bëgg ko ndax sallallahu alayhi wa sallam noonu na kenn ci yéen daal ak ngëmam du mat lu dul nit dama ko gënal boppam gënal ko léppam loolu mooy tax nit ki lu mu mën a bëgg rek sa jëm jii sax Seydina Mohamed nga war a gën a bëgg ci sa jëmm ji ak lépp loo xam ne am nga ko ci ay bokk ku mu mën a doon rek bëgg ngay bëgg ci sa xol bi daal Seydina Mohamed moo ci war a jiitu yeneen koo ca teg ba dëkk ko ca def loo tax xaadim rasul ne kenn ku mën a doon nag sa ngëm lu mat mukk lu dul ni da nga jël bëgg Seydina Muhammad jëmbët ko ci sa xol mu jiitu ca wa qaddamahu ala kulli mahbubin ne na it mat bëgg gi nga xam ne gi da koy bëgg am ko ci sa xol bii da cay jiital Seydina Muhammad ci lépp loo xam ne lii moom nga bëgg ndax xaadim rasul ne ne yàlla nee qaala allahu taala yaqulu taala annabiyu awla bil muminina min anfusihim nga yàlla ne ne daal yàlla moo wax xaadim rasul nettali ko ne yàlla ne ne yonente bii de te mooy muhammad maanaam ne képp ku di julli rek na nga xam ne balaa sag jullit mat da ngay xam ne moom yow euh، maanaam seydina muhammad maanaam moo la gën a foor moo la gën moom nga war a gën a bëgg ci lépp annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim wa qaala sallallahu alayhi wa sallam laa yuminu ahadukum xata akuna habba ilayhi min wa walidihi ajmain gis nga li ma doon wax léegi xadis bi seydna Muhammad ne ne moo ko wax seydna Muhammad moo ko wax xaadimu rasul andil ñu ko fii euh, seydna Muhammad sallallahu alayhi wa dafa wax ne kenn ci yéen daal ak gëmam du mat lu dul ni man Muhammad dama koo gënal boppam gënal ko ay doomam gënal ko ay waajuram gënal ko nit ñëpp kon gis nga ci bëgg goo mën a bëgg sa bopp ki nga bëgg Seydina Muhammad moo ko war a ëpp waaye sa waajur yi sa doom yi mboolem doomu aadama yëpp koo ci bëgg itam na nga fekk na fekk ne bëgg nga nga bëgg Seydina Muhammad moo gën a bari moo ëpp nga dog caa koo xam ne kii moom ngay bëgg waxaala cheikhu yaa man lahul amru lii wax mi nii abadan wa salli daban ala man xubbuhu furida xaadim rasul ne yow mi nga xam ne mi yow yàlla yaa moom lépp yaa ame lépp maa ngi lay ñaan nga nekkal ma te aar ma te ne ne maa ngi lay ñaan itam ngay julli saa su nekk ci ki nga xam ne kii ak bëggam lañ koo farataal gis nga ci ama zakara cheikh na adama bi nabii sallallahu alayhi wasallam wal xusraal mubiin te it xaadimu rasul wax na ne ñàkk bëgg yonente bi de mooy ak ak pertange gu leer nañ gu rëy rëy goo xam ni mu dal rek maanaam xamal ne amoo dara daa di ne zahida fi najaaxi wal falaaxi man xalbuhu man xalbuhu lam yaxi ëbbal maaxi dene képp koo xam ne kii de yi ab xolam bëgg Seydina Muhammad nekku ca na xam ne ñàkk na lépp loo xam ne ni moom la bëgg adduna ak alaxira waaye tam ne ne ñàkk na texe goo xam ne kii waral na ko texe te daal képp ku bëggul Seydina Muhammad euh, bëgg-bëgg doo ko am it texe doo ko am daa di waxal ne moom muhammadan sayyida saadaati zalmadati fa jaahilun garrahu bunyaanuhu wa yara wa yura fil bahri wal barri xisyaanan maal badani kon wa yara fil bahri wal barri xisyaanan maal badani Xaadimu Rasuul ne ne képp koo xam ne ki bëggul Seydina Muhammad Seydina Muhammad waxoon mooy sangab sang yi tayit yàlla jox ko lépp may ko lépp dane kooku day fa jaahilun réer angoogu xarrahu bunyaanu ne lu mën a am ci ay tabax tabax yooyu da ko wor maanaam am am yàlla bëgg a wax day ne ne wayara fil baxri wal barri xisyaanan maal malit te ne ki bëggul Seydina su nee ci géej maanaam ak toroxtaange rek la fay nekkee moom lay gis waaye bu nekkee ci kaw suuf yi ak toroxtaange rek maanaam dafay gis waaye maanaam ay soxlaam moom dara du ca mën a sotti ba tey xaadimu rasul di waxaat rek ci bëgg goo xam ne kii bëgg na ko seydina Muhammad ne ne wa kaana cheikhu yukinnu linnabi sallallahu alayhi wa sallam mawaddatan xaalisatan ne ne rasul daal dafa dencalan seydina Muhammad ak bëggeel gu sell goo xam ne gi maanaam boole koo nag dara wa yuhibbuhu xubban xaalata su way daa a xal bi xaadim ne na xaadim rasul mooy waxal boppam de dafa bëggan yonte bëgg koo xam ne kii dafa demoon ba maanaam jaxasoog xolam bi maanaam jaxasoo ci biir xolam bi nga xam ne euh, bëgg googu dafa dugg ci xol bi ba mel ni maanaam dañ koo móolaale ak xol bi wa yu'abbiru an dhalika bi xawlihi xaadim rasul ne ne mi ngi leeral bëgg googu moo gën yonente bi ba mel noonu ci xolam boobu mu ne ghanimtu xubbal mustafa wa tafi bi zaaka fal mu'ta kafaafan yaktafi ne ne man daal bëgg gi ma bëgg Seydina Muhammad maanaam daf maa doy sëkk am koom lépp loo xam ne lii am naa ko rek bu dib am am di am koom ne bëgg gi ma bëgg Seydina Muhammad moo ko ëpp moo ko kawe moo ma ko gënal dana ne wa bi zak te nee nag loolu moom doy na ma sëkk ndaxte fal moo paa yekk fii kafaafan na lii ñu ma jox day doy na sëkk ci lu ñuy joxe mu di ab am am ne bëgg gi bëgg Seydina Muhammad daan moo di lépp moo di koomam moo di léppam daa dina rariqtu fi baxri mahabbati rasul daa dina man day dama lab sax ci géej ak bëgg Seydina Muhammad waa artaji bihi ridaa wal xabul te ne ne lab googu ma lab ci biir géej googu te mooy bëgg Seydina Muhammad mel ni géej goo xam ne ngi dama caa lab mënatuma caa génn ne ne maa ngi cay yaakaare am ji ngërëmal yàlla ak yàlla nungul ma sama lépp loo xam ne li moom laa koy ñaan ci ay teraanga adduna ak alaxira daa wax ne sakkartu sakirtu min xamri mahabbati nabi ne ne bëgg gi nga xam ne gii bëgg naa ko seen am ne dafa mel ni sax sàngara soo xam ne si maanaam dama cee naan ba mandi maanaam dama mandi ci bëgg bi nga xam ne gii moom laa bëgg Seydina Muhammad fala azal fistana bi motul bi ne ne kon tagg yi nga xam ne moom la koy tagg du ko dagg mukk doo du ma ko bàyyi mukk sawxi wa wuddi wa mahabbati maan liman jalalan wa jamalan jamaa na ne sama bëgg-bëgg ak sama sottu ak sama lépp daal na ne boole naa ko jox ko ki nga xam ne kii moo boole ñaari muy jalaalan wa jamaalan muy ak màggaay ak ab taar lépp si ma Ahmad la ci jublu kon bii ab tënk la ci yenn bayit yoo xam ne yii tomb bi ñuy wax ci ganek àdduna gi muy Seydina Muhammad bëgg koo xam ne gi Xaadimu Rasuul bëgg na ko wax ci bayit yu am solo yi kon xaaj bu njëkk bi tey rek dañuy taxawandi fii di ñaan yàlla subhanahu wa taala allah bu amante gi beneen rek jéem a jàllaat ci yeneen tomb yi nga xam ni dafa aju ci mawlit gi muy gën ak àdduna ak seen membre bi àdduna xaadimu rasul di ci wax waxam ci am solo defal bi am jaay seen sallallahu alayhi wa sallam